les ayants droit di ci jot et quelle forme de social et quelle forme d' assistanat la ñu war a am ci réew mi. pour man dama gëm ne social bi ñàkk pexe rek la. dëkk bu mu am mooy mooy mooy yaa ngi koy jox réglé woo problème am. oui da nga koy pour mu lu mu dundee. Mhm. mais je reste convaincu que la souveraineté sanitaire. boo la doon wax mu ñëw souveraineté économique. Mhm. j'ai beaucoup apprécié bi ma déggee ci gouvernement ñu ne. ministère de la souveraineté alimentaire. maanaam loolu la ñu wax. oui. gis nga loolu pour man mooy la base du social parce que la plupart des personnes que j'ai aidées les femmes. Mhm. am nañu jàng nañu nu ñuy defaree jus. Mhm. nu ñuy defee savon. Mhm. ñooñu ngay may li ñu leen may du benn savon la ñu mën defar wala benn jus la man defar. di ci dundee par bis. mais si on les accompagne sur le plan socio-économique. jël des industries tabax ko. souveraineté alimentaire mu nekk une réalité par rapport à quoi ñuy bay di dundee. Sénégal yaatu na. gis nga campagne bi lan la ma béyoon mënaat Sénégal li fi am ci suuf bi ñu mën a béy kenn xam lu mu toll. ba tax na dootoo ci dootoo ci jaay étranger suuf si. jaay étranger. waaw non ñun soxla nañ ko. c'est interdit quoi gis naa ko ci non soxla nañ ko xamul tax suuf si dañ ko soxla pour bay. Mhm. ak pour ñenn ñu ko utiliser. li fi nekk ci suuf la nappe phréatique la les réserves hydriques Sénégal kenn mënu mhm. bi mi ngi 365 jours. Mhm. bu ñu bëggee Sénégal dem il faut que mbay mi am doole bu boobaa li ñuy transformé ci produit ci ju ci ci ci femmes yooyu ñoo koy liggéey li ñu leen di dimbale dañ leen di jox un ñu jàppale la ñu dem. Mm-hmm. da ngay gis fii parce que social boo xam ne jox la lekk ak naan loolu laay def. Mm-hmm. mais du solution. oui pexe du pexe. c' est conjoncturel. c' est il faut des des solutions structurelles. merci beaucoup. donc loolu mooy base mais dans un premier temps bala nga naan ne fa. egg wuñu foofu te l'état crée un fonds de souveraineté bu normal femme yi nga xam ne am lu ñu mën a liggéey ñu jox leen ko au lieu ñu leen koy may ñu jënd ceeb diwlin ñu liggéey seen loolu en attendant état parce que loolu état mm-hmm. xam ne pour les deux jël femme ne ko da ngay prêt loolu ban garantie la lay joxal ah amu mm-hmm. doo ko jox prêt nañu fexe ba nga xam ne dañ leen koy jox sur la base de la performance ku ci mën a liggéey nga liggéey sur la base de la performance ak loo parce que performance moom il faut ñu xam ne am na métier femme booy jox financement moom boo mënul liggéey nga boole ko ku mën a liggéey loolu ñu def association ci biir liggéey bi mu formé waale ko au fur et ñuy dem dinañ ci lekk dinañ ci dund et dinañ ci benn autosuffisance auto kii mais sinon lan lay indi te je pense que les gens l'ont fait exprès dañ lay jox nii bu élection ñëwee jox la xaalis. Mm-hmm. oui il eh, moi je sais. liggéey finance ay yoo xam ne bi ñu élection ñëwee. ñoo gars yi la ñu parrainé xam tam tax mhm. dañoo gën xaalis bi wax taal jox leen et c'est normal mhm. parce que yow mënoo ko te dinaa la voilà les conditions et ce qui fait c'est moom chaque année bu élection jotee gars yi balaa ñu gis jigéen yi balaa ñu leen gis élection da jot loolu xam nga pour mu dañ xamalal na il faut que le Sénégal ait une certaine souveraineté alimentaire du mën a nekk en une année mais mën nañu ko programme fu nekk fii ak deux ans trois ans pour que ñun ñoom bu ñuy jeexal cinq ans ñu ne Sénégal la toll bu ñu réglé lépp it au moins cinquante pour la ñuy lekk di ñuy dundee fii lañ koy mhm. béyee Sénégal. mais assistance bi mun na continuer mais comment réglementer ça tey jii. Mhm. comme ça se passe dans tous les pays day am ñoo xamante ne par exemple les chômeurs am nañu temps peut-être que Sénégal ñun àggaguñu foofu amaguñu loolu. mais famille démunie yi dinañu am lii ak lii ak lii ñi am ñi am euh, voilà. kañ la mën a xaar loolu parce que fii xale yu ndaw yi. Mhm. xale yu góor yi ma gis xale yu jigéen ñi ku leen jox en temps soit peu. ñu toog dinañ toog te dinañ liggéey. loolu la bu boobaa il faut que le Sénégal puisse s'appuyer j'ai entendu le président Diomaye la j'ai fait applaudi euh, euh, sur le secteur privé national. mooy ce qu'on la souveraineté. Mhm. privé boobu ak les sénégalais vont pouvoir dégager lever des fonds. Mhm. mettre à disposition de l'État ñu jox ko xale yi. mu néew mais je pense pas que bu fekkee ne ay yaakaar rek la ne bàyyi ma am temps góobu ma ne xale dinañ dem. donc ñuy tuuf aussi gars yi parce que boo xoolee. gis nañ fi ay programme euh, xëyu ndaw ñi. Euh, ak yeneen i programme yoo xam ne dañ koy teg man benn bi rek mën naa ko wax muy xëyu ndaw ñi euh, temps yi am na ci ñoo xam dañ lay topp même pour pour def ay ay conférence de presse wala yeneen pour wax ci problème salaire yu ñu am. yooyu nga xam ne genre tuuf la nii bu ñuy jox jeunes yi est-ce que wut ay emploi euh, yu yu rassurant du du gën ñu di leen jox genre yu mel noonu. mooy mooy il revient sur le point qu'encore a dit le président Diomaye que j'ai applaudi. s'appuyer sur le secteur privé national. oui. fii Sénégal xale yëpp ñu si bëri bo nee nañ am nee nañ amuñu métier dëgg la mais am nañu am compétence mën nañ leen jox mais nañ ñu am métier am diplôme mm-hmm. fi amul diplôme foo foo am xam-xam nañ leen a jox en quoi faisant mënuma comprendre heure bii l'artisanat sénégalais n'est pas fort mm-hmm. meuble yu bëri dañ koy importer tout dañ koy importer alors que xale yi fi nekk mën nañ ko liggéey dem nañ ba xale yi perte nañ seen expertise en matière de de de de liggéey. alors que ñun ñoo leen formé ñenn ñi dañ fiy bàyyi dem. et dafay transcender même les les les artisans. Mm-hmm. da ngay Sénégal xale bu ñu formé ba am diplôme ba aay kii dafa dem bitim réew pour dimbali ji leen. il faut que ñu jël ñun suñu pays souveraineté mu nekk raay mu nekk du vrai mooy ñu jël xale yi ñu xool leen ñu jox leen benn départ pas forcément ñu jox ku ci nekk mais ñu regrouper leen en en groupement. Mm-hmm. financer leen ne leen parce que euh, alal yàllaa koy joxe. tout le monde ne peut pas être mais l'équité peut exister. <laughs> l'égalité n'existera jamais. Oui. mais équité. mooy kii amul lu bari mais mi am na lu muy sutura. Mhm. mi ngi dund mi ngi naan mi ngi lekk mi ngi faju amul oto amul kër mais am na sutura loolu la on va aller vers ça. ku yàlla ne di nga am métier di nga ko am. mais au moins que ces gens soient dignes bu boobaa xale yi nga xamee ne parce que xale yu bëri jàngatuñu xamul tax. dañaa mhm. la fi boo jàngee am diplôme doo liggéey ce n'est pas faux en tout cas ñii liggéey ñii jàng am diplôme bari na. lan moo koy indi parce que peut-être que secteur privé bi amul doole joxuñu leen lu bari. public bi mënu leen absorber aussi. mënu leen absorber lu ci bari bitim réew koy lijjanti wala ñoom ñoo ñëw lijjantiwuñu la. Mm-hmm. moi je n'ai pas de problème pour que le secteur privé national international soit là. mais nañ ci boole suñu doom yi. oui privilégié leen ñu privilégié leen. oui Pape Sané. d'accord euh, euh, professeur. Hmm. Euh, aw mu ko mu ngi la koy fàttali sànq ci volet bi nga xam ne daanaka moom la Sénégalais yu bari découvrir mooy le volet social. Hmm. Euh, tey boo xoolee les bourses de sécurité familiale nga xam ne man bi ma ci defee gëstu j'ai vu que les critères yi waroon tax ñuy jox bourse de sécurité familiale maanaam c'est pas des critères fondamentaux maanaam damay jël benn exemple bu gaaw a gaaw gaaw euh, jëlal Gambie fii ñoom seen bourse yi pour ñu jox la bourse yow faw say doom dugg école hmm. say doom bu ñu duggul école yow doo mun a mun a faju gratuitement hmm. doo mën a bénéficier justement seen magasin yooyu boutique yooyu ñu doon def boutique de préférence yi pour nga mun ci am dund à moindre prix mm-hmm. mais fii Sénégal bourse de sécurité yooyu dañ ko jàpp comme benn genre fonds politique euh. waaw euh, yow nga doon yëngu ci wàllu social mm-hmm. tey avec le nouveau gouvernement apparemment vous allez travailler ensemble apparemment laa la wax <laughs> jeudi apparemment waaw apparemment vous allez. ils vont travailler ensemble nekkagul opposant apparemment vous allez travailler ensemble. man suma sama sama première crainte mooy. est-ce que ce gouvernement là. ne va pas continuer. politiku euh, assistanat bi awa doon wax mooy maanaam à travers des bourses familiales yi nga xam ne amuñu fenn critère bu valable bu ñu ko teg. mooy maanaam voilà clientèle entretenir une clientèle politique. même bu dee c'est vrai que am na njeexital ci askan bi mais au moins dafa war a am la nga xam ne toute toute la population sénégalaise dana ci gis euh, seen boob mooy maanaam xale yi di nekk ci mbedd bi dootuñu nekk ci mbedd bi. Mhm. xale yi nga xam ne dañu nekk en déscolarisation ñu jàng ji man boobu laa gis beneen bi mooy damay ñëw ci wàllu coalition <coughs> Diomaye 2012. Euh, Diomaye président Diomaye président. ak tey jii yéen nga xam ne candidat ñoo ngeen rejoindre coalition boobu. non ma rejoindre ma ah rejoindre ko. non non non alhamdulilah mais néanmoins. néanmoins toujours répondre à la question. tey gis nañ fi Abdoulaye Wade avec sa coalition. gis nañ fi président Macky Sall avec sa coalition. gis nañ fi président Diomaye avec sa coalition. est-ce que on ne va pas vivre encore. un nouveau syndrome maanaam de. Euh, de fonctionnaire politicien de politicien fonctionnaire. Mhm. mooy maanaam. Euh, voilà damay fayu. waaw euh, jàpp naa ci damay am lii jàpp naa ci damay am lii est-ce que loolu yow tey jii tey tey tey boo naroon rejoindre cette coalition la critères yooyu da nga ko kaas ba nga xam ne c'est pas parce que Pape Moussa jàpp na ci que forcément dafa war a am lii ou bien bi tey jàpp na ci dafa war a maanaam. ñu bañ a dugg ci. pàccu euh, politicien fonctionnaire quoi mooy maanaam mujjee di leen entretenir comme ça a été fait dans les autres coalitions yi nga xam ne ñoo a jaar. je suis tellement euh, euh, <coughs> important et, et c'est là où j'interpelle de la coalition damaa jàpp ne ñoom dañ ciy dugg dugguñu ci pour am dara donc waruñu xaar dara ci gouvernement bi. Mhm. parce que bu fekkente ne patriotisme ñu dugg ci. et d'ailleurs c'est le peuple qui a voté Diomaye et non pas les politiques. ça va également c'est extrêmement ñu xam ne politique bi ñi leen fal du politique bi ñu deful li population bi di deful liñ fi génne ñi fi nekk la lañ fiy génne rek mhm. ça moom pour man coalition lu mu am doole doole je pense que bi fi jógee moo leen dëpp doole mhm. bu dee en de puissance de parti la nombre de partis ak li ñu amoon ci alal ak type de moyen ñoo ñu ëpp xaalis gisoon nañ ko également au temps de maître Abdoulaye mhm. donc pour man tant que l'intérêt du pays sera cette coalition bu fekkee ne pour intérêt pays bi la nga tax ñu pour li endanger kenn bañ ci wut dara pour l' intérêt du pays pas pour autre chose na fa cent parti am bu dee pour xëccoo affaire la moom le Sénégal va va les attendre en tout cas nous man moom ak sama genre gi ak population bi ñu ngi xaar parce warul nekk ne liggéey naa lii dañ maa war a fayee ko bu baax kon li doon liggéey du woon pour ñoom pour du woon pour réew mi et je pense pas que pour le moment encore une fois teel na pour ñu mën ci juger dañ leen di observer parce que wane wuñu fenn foo xamee ne en tout cas man dégguma ko fu ñu naan pàcco la nañu def attention rek rejoindre tey xam naa ne tey tey rek am na ñu rejoindre ah en tout cas en tout cas moi je dis de faire très attention parce que peuple bee ko fal mais mm. ma posé question bi mooy maanaam mooy coalition de de politiciens fonctionnaires mais ku gis aussi que kii war nañ koo mën a jàppale est-ce que jàppale bi forcément a ci coalition nga def déclaration que kat Issa Issa Issa xam nga doo dem ah, euh, ba élection am ah. ñu gagné ba pare hmm. ngay doog a gàddu ah. say koog ak say carax ñëw naan je viens soutenir xaar ba neex man daal man daal man daal li ma gëm mooy parce que tamit bu duggee ci coalition nag wax dëgg yàlla jàpp ca bañ gañe war na ca amas tuut nag nañ leen wax politique boobu waaw xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw dañ ne soo cay am nañ la jox li nga mérité maanaam du ñu jël loo xam ne dañ la ko te mënoo ci dara na fekk yow liñ lay jox nga mën ko bàyyi ah, professeur mu ñëw bàyyi professeur mu ñëw mooy partage de ah, responsabilité et non partage de ah. gâteau ay population yu jóg def ay grand groupe dem voté ji def jënd seen ay ay participer dugal seen moyen moyen. Mhm. ñoom waruñoo mos ñoom. Ah, ah, kay mhm. li ñuy ah, mosee mooy. nga liggéeyal leen ba yëf yi ci ñoom. ñoom noonu la ñuy mos waaw kon gars yi war a mos par ay poste. dëgg la c'est-à-dire cest à ma a xëy na am na lu ma mën. xëy na am na loo xam ne bu ñu ko doxee compétence kenn warante wu ko compétence laay wax man la preuve la preuve yi nangu nañ loolu man combien de personnes moo di waaw yow la wooyee da war a wuy ji te xam nañ bokk ma ci coalition bi di poser mais li nit ñi bañ mooy. Uh-huh. liggéey nañu lii ñun ñoo ko dañoo war dañoo war kii. par exemple soo ko xoolee am na ñu ñu tab ay ah. jëwriñ ñu woon ci coalition bi baataruñu campagne. c'est ça ils étaient politique guñu. et pourtant dañu xool li nga xamante ne moo di compétence et les besoins des sénégalais. ci besoin de sénégalais boobu laay ñëw professeur euh, ci le nouveau ministre de la justice. Mm-hmm. dañu toll ci moment boo xamante ne euh, dañu ne woon justice bi nga xamante ne moom mooy. Euh, sooklu sooklu li nga xamante ne moo di démocratie mhm. sooklu stabilité réew mhm. tey euh, justice boobu ñu jàppoon ne c'est à terre mhm. ñu war ko tëggaat tëggaat mooñaat ko beneen bi mu di corruption nga xamante ne benn gangrène la réew bu deltu ginnaaw corruption ma nga fa naam mënuñu ko éradiquer carrément mais quand même ñu dindi ko fii tey suñu nee ces corps de contrôle wax wàllu corruption et également parler de la justice quel est ah, votre avis là-dessus mooy pour man pour man ki ñu nommé nekkul ci poli benn parti. oui ça c'est de mon signe. Mhm. te ñi ko xam ñëpp en tout cas dégg naa léegi euh, kii laa ki ki nekk seeni xam moom ne xam nga gis naa ko mu bind moom fo poste bi daf ko am na ci yaakaar. mérite mérite la. oui xam nga pour man lu mel ni justice ak yenn poste de souveraineté waruñu ko jox nit par par rapport à militantisme. Mhm. parce que day def détournement d' objectif hmm. parce que objectif bi tax ñu ko fal du ko taxati te ñëpp xamee nañ ne en tout cas sénégalais ñi ne justice dafa sooxee donc lépp lu ñu ko mën def pour defaraat ko pour ñëpp tolloo ci yoon parce que Sénégal li ñu jàpp dafa am ñu am am ndey am ñu amul bàyyi am am ndey amul ndey hmm. da nga jënd boo problème ginaar ñu téye la boo jëndul ginaar boo jàppee leen lu ñul ginaar ñu jàpp ñu jàpp la hmm. donc ce qui fait que on une excellente chose à faire maintenant il faut aller plus loin parce que wax nga ko léegi dafa naa biir euh, kii yee ko Ablaye boobu cest que malheureusement corruption bi dafa xaw a métti ci Sénégal métti na lool ndax euh, tey looyu dugal ci ñenn ñi il faut am noo defee te loolu je pense que bokk na ci li nga xamee ne euh, réew bu daanu corruption moo la daaneel te corruption moom secteur bu mu dugg buñ ko teelu dugg da nga yàq donc pour man on c'est des choses à fexe ba nga xamee ne en tout cas justice bi te ko ci yoon corruption bi même buñ ko buñ fi demee ñu wàññi ko lu mel ni ay OFNAC yooyu ñu joué seen rôle ni ko war a joué nga xamee ne euh, ñoom comme am na ñu ko waxee population bi même nekk di bu ñu gisee koo xam ne jàpp na ne kii li moom amu ko wala lii la wala ñu dégg dara ñu dénoncé ko. Mm-hmm. bu ñu ko dénoncé ñu teg ko ci yoon yoon dem parce que loolu rek moo mën a tax ba mu sotti mais ne fekkee ne dañ koy xeex yow boo waxee ne diw am na lii am na lii te ko amu ko mu mujjul fenn. bu waa gars yi dañuy bàyyi donc c'est de nouveau pouvoir c'est de nouveau gouvernement mm-hmm. am nañ ci yaakaar ci secteur yooyu même au-delà de ça d'autres secteurs donc on va voir ce que ça va donner euh, jàpp nga ne reddition des comptes bi mën na jur dara ah man de wax naa ko son programme mm-hmm. parce que pour man nee na mu <laughs> parce que gis nga pour man bu ñu mm-hmm. bëggee euh, Sénégal dafa jàpp ñoo xamee ne dañ ne ne ñii dañuy xëy ne milliardaire lañ xamuñu leen lu dul ci politique wala administration wala des fonctionnaires milliardaires des fonctionnaires loolu ñëpp xam nañu ne fi Sénégal yi dañoo jàpp ne ñooñu new ma ne dañoo ko jël alal réew mi de waxuma ko de mais Sénégal yi ñoo ko jàpp ñoo ko yaag mais ñu ne la diw am na ay milliards yu jeex am na tant tant tant tant bon te yoroon ne poste nii tel tel tel tel ah loolu même bu fekkee ne amul nañ ko xool li mu am ak li mu amul mooy ci alal ji ak foncier bi te du xaalis kese parce que ñëpp xam nañ ne ici suuf si aussi parfois mooy loolu jar nañu saytu ko ni ñu saytoo xaalis bi la ñu war a saytoo suuf si parce que y a beaucoup de choses yoo xamee ne am nañu koy wax ñenn ñi naan y a des prête-noms ñenn ñaa de tout donc defal soxla ñu laaj parce que man nanguwuma nit ñi nga yor état yor ay fonction ba pare xëy jën dem noonu quoi te seet la pour man loolu yomb na trop daal xel nangu ko daal néew ma ñu def ko mm-hmm. waxuma ko de mais yoon am nu mu ko defee ba nga xamee ne pour Sénégalais seen xel dal dal xam ne aussi ku ko defeti et puis c'est pas aussi que sax ku ko def mais au moins pour que ku nar a defati nga xam li la ciy fekk gis nga gars yi di joxe ay non non diw am na lii diw am na lii diw am na lii am na liw am na wu pas yàlla rek am na xaw ma dara te man ñaanu ma yàlla wax lu ma xamul hmm. parce que aussi bëgguma ñëw baale ci benn kuréel boo xamee ne milliardaire fonctionnaire man gisuma milliards yi nit ñi wax nañ ko mais man gisuma ko dégguma ko dégg naa xam ne gisuma ko du ci alal yu ma gis mais fekkee nit ñi am nañ ko buñ ko prouvé boobaa état mën na def reddition des comptes mais quand même pour man reddition des comptes du dul dara bu la dénkee mbir ne la temps lañ la ci jox booy dem ñu xool yow lan nga fi am ak loo amul loolu man lu positif la. bu mel ni fonds force Covid 19. te boobu dañ euh, selon li li ñu doon gis mooy dañ la ci tuddoon. waaw boobu moom laa gis nga boobu j'étais mm. tellement à l'aise bi ñu ma fi wooyee. Mm. parce que gis nga fonds yooyu bokk nañ ci li ma gën nekk à bi ñu ma ci wooyee bi ñu ma ci tuddee parce que boo xoolee même rapport bi. di la parlé waa mm. recommandation bi. xam nit ñi waxoon nañ ko. Mm-hmm. ñu defal ma recommandation. Euh, li ko indi mooy dañoo bi ma koy utiliser marché yi respecté wuñ ko. entente directe. voilà fa laa jëm nag léegi xam nga mën a expliquer l'histoire des forces Covid-19.